voilà mbokku téléspectateur leeral TV ñu ngi leen yi nuyu ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ça dépend foo leen nekk moo xam ngeen nekk Sénégal ah, mën nañ leen ne bonjour bien bonsoir ñi nekk tamit ci diaspora bi di nuyu ñëpp yéen a ngi seetaan à travers euh, Canal Plus 221 TNT chaîne 33 euh, satellite bi ak Orange TV ak suñu yeneen plateforme yi moo xam Facebook. YouTube ak seen euh, chaîne wala boog euh, seen site internet euh, leeral point net leeral FM jaa ngeen jëf tey ñu ngi sur le terrain sur le terrain muy seen émission boo xam moom lañ leen indil day wax ci sport ah, sport en général bàyyiwul dara mais tey ñu ngi am comme invité koo xamante ni international sénégalais basketball la muy Mouhamed Faye moom la ñu seet tey ci këram ñëw fekk ko en famille gannaaw bi ñu paree li nga xam moom mooy tournoi pré olympique bi ñu doon amal foofu la. Euh, ca Nigéria réew Lagos ñu ñëw am ak moom benn jotaay sur le terrain sur le terrain nag dañuy génn moo xam basket la football athlétisme boxe arts martiaux lu nekk la ñuy dem couvrir euh, muy seen émission sportive buy yàlla ci Leral TV Leral FM leexal point net alors gannaaw bi ma nuyoo ba noppi nuyu Umilaay nuyu Pa Omar et tout l'équipe ak Amat mais sama consultante sama conseillère ci côté basket sama coach sama entraîneur sama sister Euh, madame Diallo Diary taxi capitaine Duc mooy toog mooy superviser émission bi mooy coordonné lépp ah, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax alors Mohamed ñu ngi su le terrain euh, ñu ngi si parquet bi ah, euh, ñu ngi commencé sànnante ay bal ñu ngi def échauffement maa ngi lay nuyu bàyyi nga nuyoog mbokku téléspectateur bon déjà maa ngi lay nuyu di nuyu mbokku téléspectateur yëpp ñuy seetaan émission bi yëpp di leen remercier tam si seet bi nga ma seet mhm. alors mbokk doo nuyu France non instant yii Sénégal. xëy nga nuyu waa Sénégal ah. <laughs> waa Sénégal alors euh, ñu ngi sur le terrain ah euh, seen émission bi jàll Leral TV Mohamed Faye comme ni ko waxee l' international nekk équipe nationale Sénégal nekk euh, meneur arrière un wala deux ñoom seen i terme la man noonu laa ko xamee ah jaari moo ma jàngal loolu moom Mohamed jàngal nañ ma sànq loolu. mokk na mokk na voilà meneur arrière. Ah, un wala deux. Mm. un beeg bi nag xaw ma nan la ñuy def xaw ma góol la ñun xam nga football <laughs> góol la ñuy wax deux bi mën na nekk latéral uh-huh. wala wala wala mili wala kii défenseur la daal bon meneur ak arrière mooy hmm. comme ni nga wax un ak deux mooy en général ñoom ñooy yéegal bal yi ñoom ñooy gën a yor bal ñooy animé quoi ñooy ne bi. joxe voilà 10. joxe quoi ah, ok noonu la tey su may wax Mohamed Faye nekk international sénégalais nekk équipe nationale bu Sénégal ci basket. Mhm. bu ñuy wax ci Mohamed Mohamed lan mooy débéem ci wàllu basket fan nga débuté ba ñëw tey ba ak si équipe nationale bu Sénégal toujours début bi bi ngay nekk xale ba club yi nga joué ci Sénégal. bon man sama jaar-jaar ak jaar-jaaru gars yi bokkul. peut-être centre lañ commencé wala mini basket. Mm. mais man si mbedd bi la commencé terrain Castor. terrain Castor bi bi ne fii nii. Mm. c'est à à deux minutes fii. yu fàttali yow booy Castor la. exactement Castor lañ la fekk. terrain mm. la base dama doon dama mm-hmm. football. di football di football dañ doon sax xuloo basketteurs yi. parce que des fois suñu bal dugg foofu ñu tulli ko. naan leen basket sport yu jigéen la day affaire yooyu noonu. Mm-hmm. dañu dem benn jour bal amul. Mm-hmm. bal football amul. ba gis benn boy di basket ma dem toog noonu gis geste yi de def affaire yi neex ma. ba hmm. délaissé football bi ñëw damay ñëw wala indi sama équipement football. Hmm. ñëw toog di seetaan basket. bi ngay football ban poste nga doon joué. bon ay petit camp tey nag. Ah, ay petit camp ok ok donc mais ma ñëw mujj gi délaissé basket bi. damay ñëw sama équipement sax ne damay football. Hmm. mais ma gisee gars yi di affaire bi commencé mu dugg quoi ma gisee gars yi di joué ma ñëw toog seetaan. ba un jour ma dem 15 heures. 15 heures amoon benn bal fii. benn balu football sax mooy bal ñuy wax balu tàngu. waaw bal tàngu waaw moom laa yoroon dem terrain di commencé di sànni di di fowantu daal daal laa commencé basket. mais nga dugg ci club bi. nan nga duggee ci centre laa dugg. centre ban centre jëppal la nekkoon. Hmm. Fabrica basket. benn centre bu doon formé ay joueurs affaire hmm. yooyu. Hmm. fa laa dem si coach bàcc ba. moo ma formé si BA ba basket quoi. parce basket mbedd moom. da ngay tëlli tëlli rek. xamoo xamoo fooy taxaw xamoo mm-hmm. dara. Mm-hmm. bi ma demee. Mm-hmm. jox ma BABA basket foofu daal laa commencé am amour bi gën a yokk quoi. après loolu ma dem développe. développe li ma lay wax c'était en 2012 2013 ma dem développe. dem parce que entraîné naa entraîné parce que centre bi duñ duñ jouer compétition. donc te dafa am sama benn grand moo doon wax naan basketteur pour mu évoluer il faut muy compétir. donc ci laa dem. foofu développe euh, signé moom ay Diagne ay coach Laay ay coach Assane mm-hmm. dem joué foofu petite catégorie mm-hmm. en junior foofu mm-hmm. laa njëkk joué bi ma demee junior euh, commencé adapté au championnat bi en même temps ñu mënoon joué wàllu senior ok waaw si ma joué fa deux ans deux ans après si laa dem Mbour basket si instant boobu Mathieu Faye moo ne moom président Mbour basket Mbour basket waaw Mathieu Faye ak Benguel Kaba non ma gars yi bon anciens yeeg yooyu ñu leen xam. parce mm. que joué équipe nationale Sénégal. Mm. en daanaka ñoom ñoo la formé quoi da nga jaar seen loxo. waaw dama jaar seen loxo waaw. coach Bengali Kaba moom. jeune équipe nationale Sénégal ak France. même Mathieu Faye. ak France Mathieu Faye waay Mathieu Faye. je benn ne woon xaritam. mu indi ko foofu. kon jàng nga si loxoy Mathieu. Euh, waaw moo ne woon président équipe bi. ok moom mooy dafa ñëw suñu centre doon détecter ay joueurs. Mm-hmm. mu gis ma foofu. Mm-hmm. ne ma booy am nga talent affaire yooyu wax ak mm. coach bi. Mm. yóbbu ñu mbuur ñu joué foofu. joué fa joué naa fa tamit deux ans. Mm-hmm. te mun naa ne foofu la parce que en même temps dama doon basket di di jàngale quoi. ok def ko passe temps. Mm. ak parents yeeg yooyu jàng bi mooy. priorité mm-hmm, mm-hmm. pour nga génne dem basket yi sax. wala dem entraînement il fallait que nga am ay notes yu baax. donc bi ma demee Mbour ci laa commencé di entraîner matin soir. di gis benn. évolution bi quoi. ak ak coach Bengali Kaba. nga commencé di ko gëm. exactement muy ñëw ndànk-ndànk. waaw ak coach coach Bengali Kaba moom moo njëkk gëm loo ne man mun naa tekk si basket. moom mu ko njëkk wax xool ba mm-hmm. fekk deux deux deuxième jour bi mu ñëw la. Mm-hmm. ñu en xëy entraîné matin. mu ne ma booy yow. sa xam nga potentiel bi nga am. dama mm-hmm. yow fii ni Sénégal boo góor góorgóorloo sa génération. signifie dàq basket nga bokk. gëm ko. ci laa commencé bon jël affaire yi sérieux commencé di entraîner foofu matin soir. Ah. di di si gis évolution quoi. donc ma ne man lii bu ma ko continuer ah. genre yoon bu baax baa ngi nii quoi. yaa ngi commencé sentir ne war nga mën a tekki ci basket parce que ay anciens ay ay ay ay connaisseurs ñoo la ko exactement même mm. Mathieu Faye tam c'était la même chose la ma doon wax. Mm-hmm. am nga talent am nga am nga talent jàngee basket football yi ma ne ko mm. moo si mbedd bi laa jàngee mm-hmm. la plupart dañu ma naan non mënul nekk c'est pas vrai wala ma ne leen 2012 laa commencé dañu ma naan non parce que loolu c'était en en 2015 2015 waaw ok dañu ma naan non loolu mënul nekk mm-hmm. dama gëm ko nga continuer entraîner ci ci noonu la Sénégal ñu commencé ma xam quoi mm. championnat bi parce que c'était ma première année en première division oui parce que développé 2000. 2015. 2015 c'est première année ak Mbour. waaw ak Mbour ah parce que développé deuxième division la ñu. waaw léegi bi ma demee foofu ñuy joué cas yi commencé ma ràññee. Mm-hmm. ba année boobu équipe bi la doon soog a yéeg. Mm-hmm. mais c' était une première. Mm-hmm. équipe bi dafa dem ba demi-finale championnat. ok tellement liggéey bi fa amoon. série bi fa 2015 yàggul ah. non yàggul ah. dégg nga fa def daal foofu tam deux ans laa fa def. nga jógee foofu parce que mu jógee foofu ñëw Wakaam. si Iso waaw Iso si coach Libas. Uh-huh. ak coach Chérif. Uh-huh. moom tamit sama recrutement Wakaam tamit comme gars yi commencé woon nañ ma xam. Uh-huh. mais du coach bi moom genre du coach bi moom approché directement. joueurs yi parce que dañ joué ak ñoom match. ma def match bu baax joueurs yi commencé di ma message. ok di ma woo naan ma yow. di la attiré quoi exactement naan ma ñoom ñoo ma recruté. ok bi ñu demee ba lépp sotti ba ma nangu. ñu dem si ma dem toog ak coach Libas. mu ne ma bëgg naa nga ñëw jouer affaire yooyu loo looy laajte. ma ne ko hmm. non man dara man pour l'instant naa jouer. Hmm. ma évoluer quoi nga compétir exactement hmm. parce que pour man maa ngi woon si benn lancé bi. boo demee ba si biir di ko dagg di wax affaire de xaalis wala affaire yooyu. pour man c'était pas le moment quoi. sa option nekkul woon wut xaalis. exactement mais euh, li lay yóbbu ci kanam. loolu moo lay indil xaalis. exactement loolu la ok première année bi noonu. bon daf ma doon neexal rek mais du du loo xam ne tamit. Hmm. laajoon naa du woon salaire quoi waaw l' essentiel moo doon maa ngi doon joué. yaa ngi joué maa ngi doon évolué di gën a imposé wu. Hmm. Euh, nit ñi championnat bi di ma gën a xam. ok année boobu sama première année loolu laa si wutoon. ok donc. bu nekk tamit mhm. wakaam non wakaam wakaam def naa fa trois ans. trois a trois ans waaw fële hmm. ma nit ñi gën a xamee. la plupart dañu doon wax ne foofu laa jàngee basket. ok waaw parce trophée yu bëri yi nga gis fi wakaam laa ko yi yi nii yu si bëri waaw yu si bëri wakaam nekk woo foofu MVP si MVP mooy mooy ban euh, mooy trophée bi ah waa final coupe bi nii la wala euh, bii voilà bii mën nga ko yëkkate ah ñett yi waaw waaw boobu nga jëlee wakaam waaw euh, c'était en 2018 2017 exactement ak ñaari ak ñaari meilleur passeur ñaari benn final bi la bii bii c'était en 2017 moom premier final bi may joué jox ma meilleur passeur. kon ça veut dire jëlagum nga fa trois trophées. waaw trois trophées ay trophées individuel quoi. individuel waaw ok. Wakaam tam bi ma fa demee coach Libas. Mm-hmm. début bi début bi mayu ma jàmm. sonal ma mm-hmm. man tam comprendre ma. Mm-hmm. parce que ma naan coach bi daf ma bañ wala affaire lu ma def mu yuuxu wala affaire yooyu noonu. nit ñi may seetaan peut être xam nañ coach Libas ni mu mel. ak ni mu ma sonalee woon. mais après lañ toog mu mooy wax mooy am na potentiel bu ma gis si yow. moo tax bëgguma la bàyyi. si yenn erreur yi ngay mm, def moo tax erreur bu ndaw dama mënoon yuuxu des fois sax mu génnee ma ma teg ma tuuti mm. dugalaat ma mm. boobaa yow da boo toogee si maam li nga xalaat ne lii laa def lii baaxul woon dootu ma ko def donc foofu tamit évolué naa fa bu baax yooyu naa jàng naa fa lu bëri jàng fa lu bëri nga jógee ISO demaat fan ma jógee ISO voyagé naa un an dem Algérie ok kon boobu mooy sa dernier club ak Sénégal non après ñëwaat na après ñëwaat da nga dem Italie nga ñëwaat. da nga dem Algérie laa dem Algérie lan moo la yóbbu Algérie ak contact bi ni mu demee noonu. Algérie suñu coach adjoint bi newoon Wakam. Mhm. coach Chérif. moom moo ko moo ko démarché. ok parce que toogoon na ne championnat bi amatuma dara lu ma fiy prouvé. Mhm, mhm. donc il est temps peut-être ma dem découvrir leneen. jàngi leneen. pour après même bu may ñëwaat même bu dee un an laa def ñëwaat joué ma def ko. d'accord genre xaw a changé air tuuti. découvrir yeneen beneen réalité. mu expérience exactement. Mm. ma def foofu mais ma fa demee malheureusement Covid bi la tombé. Covid bi waaw fin 2019. loolu yàggul non yàggul. Mm-hmm. fin 2019 laa dem. 2020. Mm. 2020 euh, laa ñibbisiwaat. ok parce que période Covid bi la woon. maa daanaka joué wu leen lu bëri ah. bon si joué naa joué naa première moitié saison bi yëpp. ok def fa foofu tam saison bu baax. Mm-hmm. première division la. waaw première division la euh, euh, woon. Algérie def defoon fa saison bu baax. Mhm. mais malheureusement yeggul. d' ma si laa nga ñëwaat Sénégal intégré ban euh, intégré AS Douane. AS Douane AS dafa mel ni ki douane boobu nag. lu ci bëri bu ñu gënee xam ne nga sax ISO la ñu la ñu bëri xamee dafa ne fa nga ah, commencé basket. mais AS Douane dafa mel ni ki dafa am benn déclic bu mu def ci ci ci Mohamed Faye. Mhm. déclic bu doy waar. Mhm. franchement parce que. ku dégg douane mooy meilleure équipe basket Sénégal. fi mm, mm. am meilleur coach bi tamit coach mm. Pape Gueye. au au passage ñu ngi nuyu président Cheikh Diop. Ah, président eh, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax suivre suivre nañu seen seen bool bi. Ah. et Cheikh Diop était toujours avec nous. Euh, toujours nekkoon euh, partenaire u leeral moo ñu ah. doon jox résultat yi doon ñëw ci émission yeeg tout ça. ba bañee nii dem di jouer ji fële ne euh, Cheikh Diop seen président mi ngi woon ak ñun colonel ñu ngi lay nuyu au passage. bon douane douane fa la comme ni nga waxee déclic bi fa la amee. Mm, mm. parce que dama ñëw instant boobu maa ngi basket mais xamaguma basket au niveau. waay maa ngi basket ak sama talent. nii di dem mais xamaguma basket au niveau. Mm. parce que Algérie bon bien vrai que étranger la mais. niveau bi demee woon exactement c'est pas du pays basket quoi. c'est ça c'est pas le très haut niveau. donc bi ma ñëwaatee. coach Pape Gueye tamit wax ma ne ma am nga am nga potentiel. am potentiel boo xamante ne. bis boo ko xamee nga liggéey si say say say défaut. Mm-hmm. gën a renforcer li nga mën. Mm-hmm. man gëm naa ne da ngay dem say. et surtout entraîneur boobu di entraîneur équipe nationale. exactement wala AS si surtout. exactement am si yow yaakaar. Ah, muy beneen niveau boo découvrir tamit. beneen parce que comme ni nga entraîneur international. bi ma fay dem am na ay joueurs nekk équipe. Mm. amoon na Alkali Ndour. ñu mm. foofu nekk équipe nationale. et des étrangers tamit. exactement amoon na ay étrangers. waaw mm. année boobu. loolu gën a motiver sama choix ma dem foofu parce que amoon naa yeneen équipe yi ma bëggoon. waaw et en plus dañu amoon tournoi bi noonu joué. Mm. mooy basketball Africa League. bi mm. bi doon dem final bi yoon. waaw waaw demoon nañ fa en deux mille vingt et un. Mm-hmm. donc je m'étais dit que moment la man. Mm. sama moment la pour. Mm-hmm. wane li mu mën sur la scène internationale. parce mm-hmm. que maa neex na ngay joué Sénégal. nekk joué Sénégal. mais basket bi yamul fii. donc. sur la scène internationale je man pour man loolu sax moo gën a important fii basket bu Sénégal mm-hmm. si laa dem si basket bu Africa bi mm-hmm. def def fa dem ay performance yu baax on a suivi waaw terminé ay performance bu am solo sax yëkkati yéegal waxuma la sax ay histoire mais Sénégal ngeen yéegalaat ci beneen niveau parce que c'était mm-hmm. une compétition internationale exactement et puis ce américains yu ko organisé ah, teg ci exactement et puis ça a passé si sportive yëpp internationale ah, man mm. su la scène internationale loolu moom ma lancé. parce que dama ñëw euh, ñëw def nekk meilleur marqueur équipe bi si tournoi bi. Uh-huh. nekkaale meilleur passeur en même temps. Uh-huh. def am ay action yu. ban trophée nga jëlee ci bool bi. Euh, foofu a amoo fa trophée. mais da nga nekkoon meilleur passeur. ci équipe bi ci équipe bi bi quoi. si si ay moyens. Uh-huh. donc après loolu ci la ma. Boniface o bo bal bi moo coach Boniface. Boniface moo nekkoon. entraîneur équipe nationale mu mu mu woo ma. Mm-hmm. couche Pape Gueye moom mu njëkk woo. ne ma couche Boniface mu lay woo jëlee sa téléphone. affaire mm-hmm. mu woo ma ne ma seetaan naa la si baal bi. Mm-hmm. félicité ma ne ma. gis naa performance yi nga def dama bëggoon woo équipe nationale. nga ne pourquoi pas. waaw non loolu kay mënoo ko bañ. objectif baa ngi noonu c'est ça képp kuy basket. sa ñaan mooy. nga dem équipe nationale jouer waaw jouer équipe nationale jouer au niveau. parce que. honneur la ak plaisir ngay représenté. Mm-hmm. sa dëkk. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà donc bi mu ma ko waxee. ma kontaan ci torop. ne ko avec plaisir heure boo ma soxlaa man ma ngi fi. waaw sama carrière. pour fois nga dem. sama carrière équipe nationale foofu la. 2021 2021 nga dem dugg équipe nationale bu Sénégal. alors intégration bi nekk na loo xamante c'est un défi boo xam da nga ko atteindre mais tamit bi ñu demee ba dugg ci euh, lan moo doon yëg-yëg bi. bon yëg-yëgu. nga dem côtoyer ñeneen donte sax nekk nga international. parce que international moom boo xasee rek ba génn. ak tamit nekk ci club boo xam ne dafay jouer ay compétition internationale mm-hmm. internationale nga mais une première en équipe nationale bu Sénégal loo xam ne rêve la pour pour sportif yëpp. du ma ne mun naa ne satisfaction. Mm-hmm. ak peut-être liggéey bu yàgg bu sotti. Mm-hmm. parce que peut-être nii dañuy gis ñu jouer nii mais du ñu xam. li ne si ginnaaw ak sacrifice yi ngay def. donc boo. fixé woo benn objectif nga atteindre ko. Mhm. déjà c'est un plaisir c'est une satisfaction. Mhm. dem fekk fa ay joueurs yoo xamante ne. da nga doon dem stade di leen supporter. Mhm. ñoom góor gi si Dieng. ñoom ñu sundooy nga dem ñoom tam ñu yombalal la sa intégration. donc loolu nekk loolu un plaisir. même si dama dem bi ma demee dama ne première sélection la. mais man sama objectif mooy des fi. des exactement parce que. joué ñëw joué benn tournoi. Hmm. demaatoo équipe nationale man pour man pour man loolu amul sens. échec la sax ah, mën nañu yokk ne échec maanaam nga dem desoo fa dafay mel ni ki liñ doon wut si yow amuñu ko. c'est ça exactement day mel ni peut-être liñ gisoon si yow. Euh, après gisu gisaatuñu ko wala gisu comme ça. moo tax bi ma yéegee sélection bi dama gën a entraîné. Hmm. gën a liggéey. Hmm. gën a pare. pour bu ma demee relever défi parce que c'était un défi pour moi. ñu sélectionné l'équipe nationale en tant que joueur local. Mhm. c' est pas c' pas évident. du mhm. am na ñu ko def mais bëriwul. bëriwul surtout dem imposer wu. Mhm. def ay performance yu baax. donc sama objectif man loolu la mooy nit ñi ràññee ma. xàmmee ma si xàmmee ma si équipe nationale bi. ba ma des fa. mais mais Mohamed nga nekk équipe nationale bu Sénégal. mais bokk nga ci joueur yoo xamante ñoom nañu ne instant ñooy yaakaaru équipe nationale bu Sénégal loolu yaa ngi koy dégg bon du ma ne du yaa xam ma rek ku nekk ak peut-être ni wala wala loolu da nga koy bañ a wax quoi. non a ku nekk ak ni mais loolu am na parce que parce que loolu am na parce que nee nañu parce que boo xoolee si compétition bi ñu génn si euh, demi-finale defe naa yaa nekkoon meilleur passeur xaw ma meilleur meilleur marqueur xaw ma daal. waaw bokk nga ci joueurs yi ñu gën a ràññee euh, ci pré pré olympique bi mooy éliminatoire yi ñu doon def fee ci Nigéria. mais bokk nga ci yaakaar ñoo xamante ni ñoom lañ jàpp ne xëy na coupe bi ñuy wut depuis 26 ans. yéen a ko fi mën a andi. ah waaw man du ne man maa yaakaar mais équipe bi. non bokk si yaakaar yi. Euh, man xam nga xam nga xam nga relation eh. euh, coach bi ma mm. toog coach bi woo ma mm. ne ma dugal mm. ma indi genre li ma mën di ak li ma mën a aider équipe bi pour man genre loolu mooy sama satisfait xam nga ku nekk tam ak ni ngay gisee mais pour man ñëw jàppale équipe bi la moment bu ñu ma soxlaa ma dugg mais mais teewul mais teewul yow xam nga ne bokk nga ci joueurs yi nga xamante ni ñoo am gën a am importance ñoom la coach wala boog ñoom la sénégalais gën a yaakaar ci équipe bi pour li ñuy wut ñu andi ko ah, loolu mën naa am. waaw ba tey mën naa am wala ngay ñeneen ñi xaw a kii. non du loolu sax mais eh? comme ni wax rek. non gars yi ay gentleman la ñoom Youssoupha ñoom ñëpp xam nañ loolu. waaw xam nañ Youssoupha Ndoye moom xam na ne dañoo yaakaar ci yow. non est douze la si ñaari basket. parce que boo xoolee li tax ma wax loolu xaaral ma dimbali la léegi. waaw dama lay dimbali ah waaw ah, dama lay dimbali rek pour mu oyof ci yow. parce que da bañ a yenn affaire mu diis <laughs> léegi dangay gis équipe boo gis. Mm-hmm. Hmm? am na ñoo xam ne ay yaakaar la yaakaar bi xam nga lan mooy jour mooy entraîneur toujours dafay njëkk a si individualité. waaw bu compter si individualité ku ci nekk individualité boobu dafa am lu muy. Mm-hmm. wut si yow li muy wut si yow nag mooy indi cohésion bi affaire d'équipe pour ñu mën a gagner mais ku ci nekk da ngay indi sa individualité maanaam li nga mën sa mën-mën sa xam-xam mooy man moo tax mani la si individual individualité boobu hmm, moo tax may la bokk nga si yaakaaru sénégalais yi pour ñu indil ñu coupe bi ñu soxla. waaw ah, d' accord incha allah nga léegi. d' ac ci comme li nga wax rek. kon jàpp ci waay ku ne indi sa partition. waaw li nga wax équipe. Euh. si ñaata sénégalais yu basket ñu jël douze joueurs. mais parmi Donc, les meilleurs meneurs du Sénégal. ku ne nga bokk équipe nationale Sénégal. waaw moom laa lay wax. Ah. day bañ a nangu rek day bañ nangu de ndeysaan dafa oyof rek <laughs> ah sa turandoo daa oyofoon moo tax war a oyof. yow <laughs> daal dama bëgg waxloo. non waxloo ma la. <laughs> man daal sama partition laa indi bu duggee. Ah. dinaa joxe lépp parce que xam naa ne. Mm-hmm. toute une nation laay mm-hmm. sama famille déjà. Mm-hmm. samay proche tout le Sénégal. Hmm. donc ma duggee rek lu ma mën ak lu ma mënul yëpp dama pour ñu gagner. olympique bi nii ban nomination nga ci am. Euh, non boobu amoon nomination. mais demi-finale bi yaa nekkoon meilleur joueur ou bien ah. meilleur meneur je sais pas. Euh, demi-finale est-ce du woon Branco. Branco. Ah? ok ok alors euh, léegi nag ñu dem ci compétition boobu noonu dem ngeen pré olympique Sénégal qualifié coupe du monde. ngeen dem pré olympique malheureusement en finale ngeen daanu. mais Mohamed finale kenn xàmmewu leen lu xew da ngeen sibburu woon dégg naa ñoom ngay nay jigéen ñi <laughs> seen premier ak match yi dañu sibburu woon ñu perfusé leen yéen da ngeen joxe joxe joxe ba finale kenn xamatul kenn xamul nu mu demee ko wala da ngeen daje ku leen ëpp doole. ne dañu ñëw. waaw léegi nu mu demee noonu nan la eh, demee. basket moo demee noonu rek. Hmm. benn match moom benn match lu ne na si. Hmm. te nuñ duggee si match bi antam bi baaxul. Mhm. et ñëpp xam nañ ne basket remonter score dafa métti. dafa métti loolu la jaari di wax. exactement daw ci ginnaaw score dafa métti dafa métti. instant bi nga gën a soxlaa sa sa énergie pour jàll si kanam parce que mhm. ñëwaat nañ ba deux points. Mhm. benn instant ñëwaat nañ ba trois points. mais instant boobu ngay lâché. parce que daw si ginnaaw score défense bi daw bi dafa métti. mais dama doon gis saa yoo leen revenir score. ay trois points cinq points. dañuy gis dafay mel ni Cameroun yi. dañuy gën a làbbaliwaat gën a dugalaat ay bañ gën leen a dawloo quoi ñoom jour boobu ñoom dañu am réussite am réussite jour boobu am réussite bu baax sax ni ñu wax y a des jours avec y a des jours sans mm-hmm. peut-être que ñun surtout suñu premier mi-temps jour sans lañ newoon mm-hmm. parce que deuxième mi-temps bi joué nañ du ma ne suñu vraie valeur sax mais mm-hmm. joué nañ ba ñëwaat ba cinq points mais basket moo demee noonu lool loolu lañ mën a ñu gis troisième quart-temps ba quatrième ngeen gën a lâché carrément mais jour sans bi est-ce que mën nañ wax ci côté physique bi dafa dafa def effet. non man mën nañu wax ne Fatick. mais lu ñu joué loolu la Cameroun joué. daa joué demi-finale. joué xëy joué joué mais mais yéen dafa am loo leen njëkkee. Ah. yéen da def ñaari voyage waaw dem Chine xaw ma Japon. waaw dañ dem Chine participer benn tournoi jóge fa dem euh, fan sax. amul foo leen demaat. Euh, dem fa joué fa ay ñaari match xaw ma escale Kenya ngeen fa escale rek après si lañ dem. door euh, mais fële joué nañ fa trois match boobu ça a bénéfique waaw ça a bénéfique. parce que comme équipe bu bees la ñu am. dañu bëri ay niveau. Mm-hmm. soxawoon nañ loolu pour. Mm-hmm. déjà cohésion équipe bi mm-hmm. gën a xamante. surtout pour man c'était c'était bénéfique. donc man gëmuma ne excuse voyage yi la wala affaire yooyu. man je me que. c'était juste un jour sans. un jour sans ñu ñëw doxu. Mm. pour pour man loolu loolu. non puissance gaynde yi la rek gaynde indomptable yi rek. ñooñu ñooñu neexu ñoo jot de. non ñooñu ñooñu te pourtant tase nañ année passée ba année passée sax c'était en c'était en février. février tase nañu doo leen vingt points. vingt points août passé même chose suñu match yu mujj yëpp même afro basket noonu la woon. Mm, mm. mais jour boobu man. bon c'était un jour sans c'était un jour sans parce que doo xam noo koy. sport moo demee noonu quoi doo leen comprendre quoi. c'est ça mais après bi ngeen ñàkkee match bi au niveau des vestiaires nu mu leen def. waaw déception la déception la parce que. parce que on sentait que ne on sentait que ne da ngeen ko bëggoon. Mhm. et on sentait que ne jege nañu woon dem ci tournoi euh, olympique bi. jege ngeen ko woon quoi dafa mel ni tegoon ngeen benn tànk bay waaj a teg catu tànk bi. ñun jàppoon nañ ne dem nañ ba pare. c'est c'est fini waaw waaw jàppoon nañ ne dem nañ ba pare. parce amoon nañ confiance si ñun suñuy. suñu capacité déjà. pas mm. sous-estimé wu ñu. équipe bi tam gëmoon ngeen ko quoi gëm nañ ko gëmoon nañ ne. Mm. ak lu mu munti demee ba bu match bi mu des une minute ba mu des ay secondes. Mm. ñu ngi koy gëm coach bi mu ngi naan xaw ma ndax yéen mais man gëm naa ne dañuy gagné. ok donc boo jugee si loolu peut-être. déception ngay am. c'est sûr déception ngay am. mais pour man motivation la. en ak lu mu lu ñu lu mu métti métti c'est c'est pas un tournoi majeur. Mhm. pour man bien vrai que jouer Jeux olympiques. et man je me disais que sànq li nga doon wax c'est une euh, nouvelle équipe. équipe bu bees la. Mhm. mais dafa mel ni kii mayonnaise bi muy commencé jàpp mhm. parce que yéen ngi commencé di miinante. Ah. yéen gën na am cohésion damay gis sax ñeen i gëmm di paasante léegi. te loolu gëj na am ci équipe na du Sénégal bi. na am ba pare. Mm. ambiance bi fa am même bu dul si biir si mm. biir terrain bi. Mm. bu ñu bu ñu joué ñun ñëpp joueurs yi ñooy nekk. donc je pense que loolu mooy après mooy. feeñ ci mm. terrain mm. ñun ñëpp ñooy nekk ñooy toog ñooy waxtaan. Mm. dañuy dem si néegu benn joueur toog foofu waxtaan. pour man je pense je pense que yombul ci équipe. ñëpp nekk sur la même longueur d'onde. et puis une équipe jeune ah. exactement ay xale. muy équipe football di équipe basket. c'est pas évident parce que joueur bu nekk. peut-être yow sa club. joueur majeur nga fa wala affaire yooyu. tu comprends donc boo joueurs yi wàcce wuñu seen bopp. wàcce wuñu seen bopp rek day day métti. esprit d'équipe quoi exactement parce que ku nekk day bëgg feeñ bu boobaa. Mm-hmm. mais loolu amu fa. Mm-hmm. esprit d'équipe ngeen am exactement ku nekk dafa yéene. amul ki mooy ku mag ki amul ki mooy nangam amul boo ñëwee toog même ak même ak yenn dirigeants yi boo ñëwee toog doo doo xàmmee ni ñi ñooy joué. waaw waaw doo xàmmee ni ñun ñooy nekk. ay copains ngeen ñooy toog di jouer play di waxtaan. Mm, mm. donc je pense que si terrain bi. waaw waaw parce que yéen a gëmm di passé. exactement yow sax da ngay jouer sax mel ni luy fecc ci <laughs> terrain alors Mohamed ñu gis ne euh, recommencement amaan na ah. uh-huh. parce que perte ngeen coupe du monde bi damu leen tournoi olympique bi doo leen ci dem mu nekk benn beneen commencement boo xamante nii mm. est-ce que yéen seen biir waxtaanee ngeen ko. waxtaan nañ bi match bi jeexee. coach bi loolu la wax. Hmm. capitaine bi loolu la wax. Hmm. dirigeant yi loolu la ñu wax. comment capitaine Youssou euh, Branco mooy capitaine Branco moom mooy ancien équipe. waaw donc moom moom mooy gën a wax sax que. que hmm. mën nañu wax ne moom mooy. capitaine moo leen di dooleel quoi mooy seen grand quoi. symbolique bi. waxtaan nañ. waxtaan nañ suñu biir wax nañ ne suñu objectif du woon lii. parce que dem Jeux olympiques neex na trop. mais pour man li Sénégal di wër depuis pour man indi loolu moo. moo gën a neex. mooy coupe d'Afrique. exactement moo moo ëpp importance. Mhm. te ñu ngi si yoon bu baax. parce que mooy seen objectif. mooy suñu objectif c'est en c'est en deux mille vingt benn peut-être deux ans même pas. Mhm. deux boo xamante ne. Mhm. mun nañ ci liggéey. xool li baaxul si match yi ñu dindi ko. gën te ça se dafa mel ni ñu ngi koy sentir nii parce que esprit bi am na comme ni ngeen ko waxee yéen da ngeen déggoo seen biir équipe baa ngi commencé di di màgg ñuy gis beneen beneen équipe. ak paa bi gay ah. exactement ak mm. coach paa bi ak coach Amadou. même mm-hmm. daal mot d'ordre bi loolu la mot d'ordre bi mooy Afrobasket 2025. Mm-hmm. dem Jeux olympiques neex na mais du objectif. Mm-hmm. objectif bi mooy parce que dañ ne woon même bu amul tournoi bu amul compétition si vacances yi dañ doon entraîner. da ngeen di entraîner waaw pour comme ni nga wax mayonnaise bi. gën a jël ngeen gën a bi gën a kii parce que xam nañ li ñuy xaar. 2025 mm. parce que Sénégal bu demee compétition. dañ koy xaar. surtout jël nañ coupe d'Afrique côté eh, football bi. exactement tamit foo leen dem nañ. fu ñu dem xam nañ ne fi mu nekk nii yéen instant da ngeen di concurrence anteeg football bi. comme football jël na coupe yéen par force da jël euh, coupe. motivation source de motivation mooy concurrence bi maanaam ñii mm-hmm. tey suñuy frère lañ. Mm-hmm. def nañ lii ak U19 yeeg. chan beeg yooyu noonu da ngeen naan pourquoi pas ñu aussi ñun ñoo ci des quoi. non dañ ko dañ ko war a jël sax. parce que yéen da jëlul coupe ah man amee moom naqari na ma trop. ñëpp jël nañ coupe. te dañ doon xas footballeur yi de. <laughs> te footballeur yi lañ doon xas footballeur yi naan léegi xas léegi ah, léegi yéen la xas. mais avec la nouvelle génération am nañ ci ah, yaakaar. man ñun de a pare. Hmm. gën a liggéey ku nekk liggéey sa côté sa club. Hmm. bu ñu tasee affaire yi gën a yomb. Hmm. incha allah alors euh, léegi ñu jeexal émission bi yéen a ngi sur le terrain ah, ñu ngi sur le terrain comme dañu jugee euh, ci tournoi bu am solo équipe nationale bu Sénégal euh, nekk ci ay joutes yoo xamante ni ñu ngi euh, préparé wu yeneen i compétition comme Mohamed fay ni mu ko waxee bu équipe nationale bu Sénégal moom moo ñu dalal këram fii ci Castor ñu ngi préparé lii di Coupe d'Afrique 2025 incha allah mooy seen objectif alors Mohamed à part Sénégal nekkoo nekkoo Sénégal yaa ngi joué à l'extérieur waaw maa ngi joué François France ban club Fleur Fleur tudd Fleur fa côté Lyon la nekk. côté Lyon laa war a dem daaw daaw côté Metz laa newoon. Mhm. mais cette année damay. da nga changé club waaw mhm. beneen division. beneen allah yàlla na gën a yokk. amiin yàlla na gën a yokk nga dem NBA. ñu drafté la. draft la ñuy wax a ah. ñu drafté la ba ñëpp di ko coow. amiin waay ak sama gaan bi fay kontaan ci. <laughs> boobaa kay moom mooy dem mooy dem suñu affaire yi. dafa doy waar. <laughs> seet seet après dinañ ci yow incha allahu rabbi alors ñu ngi lay souhaiter bon chance. kañ nga war a delluwaat. Euh, samedi ah samedi dafa mel ñun nga doon xaar pour dellu. waaw dafa mel waaw mel leeral nga doon xaar. yàlla sa yoon leer. amiin leeral ñëw na yàlla sa doon sa yoon leer. leer sax man ah, ah maa umi sama tim ni Pa Umar ah Baaba nu mu tudd Samba Amath sama coach si jaar yi ñëpp ñu la koy souhaiter. ak tout l' équipe leeral Leral Média nañu ci ñu ñu recevoir e après euh, seen tournoi bi bi mooy sa première émission exactement ñun tamit émission bi sur le terrain yàlla na nekk loo xam ne mooy leeral sa yoon ah, est-ce que xam ne leeral ku fa jaar da leer ah, ah, instant yi si émission bi da nga leer nañ sama xel dal na instant <laughs> day leer insha allahu rabbi alors lan mooy ay ambition euh, Mouhamed fay bon continuer équipe nationale hmm. longévité bi fi gars yi am. Hmm. gars yi ñu lii lañu bëgg nga indil ñu ko. non day ñëw. coupe bi incha allah loolu loolu mooy suñu bébét moo tax ñu bëgg des équipe nationale. pour pour indi ko. incha allah ak gën a gën a en gën a performé. Hmm. gën a yéeg gën a a. incha allah incha allah ba ñu drafté la États-Unis léegi benn laaj laa lay laaj ñaari laaj laay mujjee laaj ñett laaj astafurlaa wala ñeent astafurlaa. dama cinq. non quatre baax. quatre baax <laughs> premièrement. Ah. Mohamed nan nga see naka nga gisee compétition équipe nationale bu Sénégal côté jigéen bi afrobasket bi passé. côté jigéen bi. waaw ah. ah. réussite la de. waaw ah. réussite la moom franchement. Mhm. di leen féliciter de passage. Mhm. parce que déjà ak ni ñu ni ñu débuté. Mhm. déjà c'était pas facile. oui c'était pas facile. ñu commencé Siburu exactement. Siburu waaw. ak ñi màgget ñi ci nekk. non ma mag ba baax na si équipe. ah léegi déedéet ñooñu dañu màgget. non. man dafa baax si équipe màgget. ah mais mag dafa baax si man ne mën naa la limal ñoo xam ne dañoo màgget. waaw tey du ma ko def fii dama lay bañ a tooñ. sa <laughs> émission la. non la la ah. la ñoom ñoo la yóbbu. sans bu doon jeunes ñoo dem. non c'est damay neex man ma leen di kii ko ma leen ma leen di sànni ay xeer. Ah. waaw waaw damay neex. waaw parce que ah. équipe bu bees la. man pour man soxla nañ. Hmm. soxla nañ ñaar ba hmm. ñetti ñetti hmm. ñetti anciens ñoo xamante ne. joué nañ am jël nañ ay compétition jël nañ mm. Afrobasket mm. xam mm. nañ compétition au niveau donc pour ñu mun leen même bu fekkee ne dañ dem joué wuñu sax am nañ njëriñ si ginnaaw si baax ok ok beneen laaj bi euh, noo jàngatee coow bi amoon ci équipe bi entraîneur bi bëggoon dóor benn joueuse li tàngal xam nga noo koy jàngatee Moustapha Gaye diggante moom ak Ciara tamit coow li bëri na trop. loolu dëgg yàlla loolu est naa si wax. waaw mais non nooy jàngatee rek entraîneur boo xam ni Moustapha Gaye diggante moom ak Fatou Pouye coow li ci amoon gis nga ko non ma pour man loolu envie gagné la rek. Ah, envie gagné la amoon rek. Mhm. pour man moo tax peut mu demee noonu. mu demee noonu ku te nekk ak sa style coaching ku nekk ni nga mel. Mhm. ak ni ngay ni ngay nekkee à l'aise. Mhm. malgré ça loolu yëpp. dem nañ final donc ça montre am na am na liggéey boo am mm. te joueurs yi nañ si mm. moom manière am bi muy gérer mm. parce que bu doon peut dafa am problème wala nu muy gérer euh, baaxul duñ dem final je donc man pour man si le coaching am la ak envie gagné c'est alors bi ñu naturalisé mu nekk Séné euh, américaine Ciara après le match sa réaction sur Moustapha Gueye noo ko jàngatee bon ah loolu moom loolu peut-être que li mu li mu ressentir la si moom rek moom mu wax ko parce que américains yi moom noonu lañ mel hmm. peut-être mun na mun na am sax peut-être regret na ko après regret na ko après hmm. mais réaction à chaud la man pour man déception bi la ak hmm. peut-être final bi ñu perte ba moo indi loolu quoi pour man mais je suis que après waxtaan nañ ba dégg ko démission Moustapha Gaye bi na nga ko jàngatee direct direction nekk entraîneur direction technique ñaar yëpp la démissionné. waaw ah, mais dañuy respecté décision bi rek di ko di ko remercier. Hmm. parce que am na lu mu def si basket Sénégal. Hmm. en tant que directeur technique am naa ko coach jël na ay trophées yu bëri. Hmm. donc dañ koy remercier parce que coach Tafa sama père la. dañ koy remercier di ko. souhaiter peut-être day day defaat day demaat si leneen wala affaire yooyu ak lu mu si lu mu munti dem rek. mu nekk si jàmm. incha allah alors euh, lan mooy sa ambition ci wàllu basket fii ci Castor. am nga ay jeunes ñuy basket am nga ay rakk yuy basket. tey ma ñëw fekk si gàll bi ay quatre jeunes ñoom ñëpp sol nañ seen équipement. dem ñëpp ay basket sa rakk yëpp. sama waaw sama rakk yëpp ay basket. ñoom ñëpp ñoom ñëpp laa gis ñu ma ni waa mais fii xanaa basket moo fi xew. ah fii kay moom kër basket la. te maa ngi football basket booba am na ay cousins yu football. mais sama rakk yi ñoom sax dañuy dund basket bi sama rakk yi moom ñoom ñaari rakk la am. basket rek la ñoom ngay dem nañu entraînement sax. te dégg naa ñoo ma gën a aay. ñoo la gën a aay. ah loolu la yaa leen ci pousse nii. loolu la gaa yow. yow yaa leen ci dugal woon influencé parce que mun naa koñ bi sax man maa fi njëkk opté pour basket. waaye koñ bi Castor ah. man ah. yaa influence jeunes yu bëri ah. am na léegi am na booy yu bëri yoo xamante ne ñoom mm. basket. Mm. am na centre bu nekk fii si terrain Castor. terrain bi ubbi. Mm. club la sax dañuy compétir centre la en même temps club dañuy jouer championnat. fierté la dëkk fii. Mm-hmm. di représenter fii dëkk bi. Mm-hmm. di influencer jeunes yi. Mm-hmm. c' est di représenter Castors quoi yëngal Castors yëngal Castors ah, yëngalu ma dara <laughs> en tout cas seen fierté quoi. Euh, euh, euh. bàyyi nga tàggatoo kontaan nañu. li ñu recevoir sa kër. ñu lay ñaanal jàmm samedi ngay ñibbi. France ba nga nekk yàlla na la fa yàlla defal jàmm. yàlla na ngeen jël championnat beeg yooy mais balaa trophée bi trophée lan la. trophée bi benn. MVP waaw MVP tournoi benn tournoi bu ma demoon joué la. bu fan la woon. Euh, je pense Liberté 6 la. Liberté 6 ñu joxoon na ko quoi léegi présenté ma trophée yi par benn benn rek. bi trophée bi la woon comme man mm. damay taxawaal di joué rek. waaw benn mm. bi tamit San Derkle waa amoon benn tournoi. ok ñu jox ñu ko. petite catégorie la woon. Euh, non non. t'as jeune. yàggul noonu. sañoon na ñëpp ah ay quatre ans. waaw bi championnat la woon. final championnat taxawal ko jël ko. final championnat bi ñu perte contre Duc. ok euh, sama dernière année droit. nga jël fair play bi waaw bi Coupe Saint-Michel la woon. Coupe Saint-Michel ma bokk nekk meilleur meneur. meilleur meneur kii meilleur meneur compétition Coupe Saint-Michel non saint ku ñu jox trophée aay na. cinq cinq majeurs. waaw ah, cinq majeurs moom lu ñu jox trophée ku aayul de <laughs> te coupe mag bi nag. coupe bu mag bi bii benn tournoi la woon. Mhm. comme bon fii mooy fii mooy peut être fii mooy quartier général sama sama parce que dañu am ñi ma la àndal yëpp ay basket. Mhm. ñi ma ñi ma àndaloon di basket ak yooyu dañuy. def ay équipe di dem jouer ay tournoi. Mhm. donc bii foofu la li jëppal loolu. jëppal ñu ngi ko gagné waaw. ok ok yeneen trophée yi meilleur passeur. yii yii moom coupe Saint-Michel la yii. médailles ñett yi Coupe Saint-Michel la médaille afro basket baa ngi nii. ah boo way afro basket bi. waaw troisième place. troisième place ok beneen bi. bii bii tournoi tournoi eh eh, bii. ok moom fàtte naa sax fan la fàtte nga ko da ngaa jël ay trophée ba fàtte. <laughs> yàlla nga jël leneen. yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yàlla na yàlla jàppale alors ma bàyyi la nga tàggatoo. bon déjà dama lay remercier. merci si seet bi ngeen di di remercier Diary parce que. Mm, mm, mm. moo ma contacté. taxi moo ko démarché ah, <laughs> waaw. léegi Ndiaga léegi Ndiaga a ci xaj. xam taxi ñetti ah. nit lay ji. léegi ah. Ndiaga Ndiaye la léegi day jël <laughs> ñu tuddee ko BRT wala TER bi. moom. borom baax la baax di ko remercier waaw di remercier. équipe bi équipe leeral bi ñëw mm, yëpp di leen tamit souhaiter comme ni nga ma ñaanal rek. Mm. télé bi gën a yokk. amiin seen seen mbir gën a leer. amiin yaa rabbi incha allah amiin yaa rabbi alors merci beaucoup mu nekkoon euh, sur le terrain ñu amoon euh, gan wala boog ñun ñoo doon ganu Mouhamed Faye euh, ari meneur arrière 1 2 bu équipe nationale bu Sénégal def prestation bu am solo si tournoi pré olympique bi ñu doon amal ca Nigéria kon dégg ngeen ko objectif am mooy ñu daal di jël Coupe d'Afrique bi nga xam ne ñu ngi koy wër. depuis des années am nañ ci yaakaar ñoom ñëpp ñu ngi leen souhaiter bonne chance et félicitations à tout l'équipe PAD bi et son staff la fédération sénégalaise de basketball ñu gën a jàppale jeunes yi parce que gis nañu ci tournoi bi benn équipe boo xamante ni macha allah mën nañ am si ñoom yaakaar laf cat yaa leen yàlla jàppale ba compétition bii di ñëw coupe d'Afrique bi nee nañ mooy doon seen objectif yàlla nañ ko jël si jàmm ak salaam euh, sur le terrain nag ki ko organisé ki terrain bi yëpp moom mooy jaari sama consultante maison sama sister ah, suma xarit ah, ak xaritam moom boo moom mooy nëgal sama xarit mooy xaritam kon moom moom sama xarit la <laughs> sama sister la maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax projet numéro bi moom yéen ak jaari la incha allah rabbi du ma ci laal dara ah, kon mi ngi noonu. Mohamed Mohamed nee na Mohamed da ngay jox takku dënn <laughs> Mohamed fàtt naa laaj madame de. naa la boole. <laughs> naa ko laaj madame. Mohamed am nga am nga ah, soxna. am naa soxna am nga soxna. un mois un mois laa tax. un mois léegi xaar Mohamed da nga am soxna une semaine. nga dem regroupement waaw. defoo ligne de miel. si dem naa une semaine boobu laa dem rek après. mais Mohamed moo tax kañ nga sawar ci tournage. <laughs> Mohamed. <laughs> soxna xaaral ma ne am net bàyyi mu bàyyi mu am net. Mohamed dafa diis. Ah, non su ma lay bëgg a tooñ am net laa lay wax. wala gaañ. non non la booy fay booy sax. booy fay yow sax booy laa. booy def une semaine ligne de miel. waaw dem regroupement. dama dem France am papier yu ma doon lijjanti pour trois jours après enchaîné. anam moom mi ngi fi. waaw mu ngi fi ah. booy demaat samedi da nga koy yóbbu. non. Anta Fiba déet mu amee li nga wane ci tournoi bi nii maanaam nga ko war a yóbbu ne da ngay joxe bu baax dina dem incha allah bu la fekkee fële nga jëm de état NBA nga jëm incha allah bul kii ko am na lu xew de effet jeune bal yi di jaar ci tànk yi di génn waaw benn yenn nga jaar la ko ci bopp mooy saa yi sawar na de ah yoon la waaw mais dégg naa basketteuse la waaw basketteuse la mais léegi la doon basket bopp la doon basket mais na basket mais léegi bàyyi na amatul temps la mu ngi basket Mm. nii di ba foo rek quoi mais day day liggéey day liggéey quoi macha allah yàlla leen yàlla defal jàmm incha allah yàlla leen jik a ah, ngeen am si ay njaboot yu barkeel incha allah amiin incha allah jaajëf Pamar lay jaajëfal bu baax a baax moom c'est le réalisateur maa ummi moom sama team la bokk moom mooy euh, co-réalisatrice hmm? ah, moom moo topp ci mu ci kii <laughs> ci ci ci ci Pa moom mooy mooy co-réalisatrice Leral Sport ak euh, sur le terrain kii nii ak xarañ ah ak xarañ koo koo gis kuy sol ay verre dafa xarañ waaw koo gis tamit muy sewal bët yi dafa xarañ ay <laughs> eh, jaajëfal jaar yi amaat ñu koy jaajëfal moom tamit si tim bi la bokk jaajëf baaba jaajëf ken muy fàttali xam nu mu demee noonu mm-hmm. Samba ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk yi jaa ngeen jëf c'était sur le terrain beneen euh, numéro euh, sur le terrain incha allah rabbi dans 15 jours jaa jëf léppay leer incha allah rek ci côté sport jaajëf mucc ak mucc lay. maintenant concernant Mamadou Faye sama doom mun naa ne daf ma yóbbalal lépp parce que yar bi moo tax kooku ñëpp ko wax parce que boo juree sa doom vraiment muy yaru yem mu war a yem dana yóbbal lu bare bare bare bare occasion la aussi parce que nag c'est vrai góor mooy mooy mooy mooy borom kër nag yaay moom mooy yar quoi l'occasion vraiment de rendre un hommage très très très très gratuit à Abou Nepcoune ami Collé Baldé mooy seen yaay ñuy ñetti lañu moom ak ñaar rakkam yàlla def nag ñoom tam aussi c'est des basketteurs ñoom ñu ñoom xam xëy na xam naa mën na jàpp xëy na moo leen bi ñu ñoo tam ñoom tam c'est des bon ñu topp ay seeni mag muy góor loolu nag bon euh, Mamadou Faye euh, sportivement parlant euh, dama ko dama ko ne léegi da am sas parce que boo jëlee ñiy basket Sénégal xëy na peut-être deux cinq millions la te équipe nationale douze personnes lañ donc bu la fa yàlla yóbboo rek da am sas muy góorgóorlu c'est vrai que ñu ngi góorgóorlu gaa mais nag euh, vraiment li ñëpp di xaar rek mooy man mooy yëm mu ñeneen mooy mooy la euh, afrobasket bi parce que vingt six ans on est sevré de coupe te kooku vraiment Sénégal ak ñi moom ci potentiel aussi bien personne une personne euh, ressources humaines ci basket yoo war a mun daag dañuy ñaan rek yàlla jaar ci ñoom ak ñoo fa nekkal aussi bon voilà que moom ci ay waxam. Mhm. def ne début bi métti woon na parce que da doon laqatu ci dem di basket yéen noo leen ko daan gunge. waaw c'est vrai effectivement xam nga ñun bon ku képp kuy bëri kër da ngay ay jàng moo lay obnubilé quoi mhm. mais finalement effectivement bon daaw sax jàppante mais da doon làqu bon c'est euh, pas seulement pour mais ba ma déggee xam ne passion la pour moom loolu la bëgg mais ma bàyyi ko mu dem. ma ko léegi xëy yoonam foofu effectivement kon la jaar dina dem Saint-Michel bon jogee fa ensuite c'est l'occasion pour man rek ci carrière am parce que en fait am na boo xam ne dañ ci jàpp yu bare bare bare mooy début mooy par exemple poste batch bi nekk abri fabrica waa développe avec monsieur Diagne euh, euh, MD waa waa Mbour ak Mathieu Faye parce que Mathieu Faye en personne moo ñëw fii jël ko yóbbu ko Mbour bu jógee fa ñëw ISO Wokam ISO et finalement AS Douane AS Douane ñoom ñëpp vraiment c'est des gens yoo xam ne dama leen di gërëm parce que jàpp na ci bu baax baax a baax a baax c'est-à-dire y m'a marqué parce que en deux mille dix neuf finale coupe Saint-Michel muy woon ISO ma di jouer contre Douane li yàlla di def après ñu gagné coupe bi bon lui il a gagné la coupe euh, euh, la la coupe Saint-Michel il a été MVP et meilleur passeur bon alors cerise sur le gâteau comme on dit ñaari aussi ils ont gagné donc. bés boobu je me suis retrouvé avec quatre trophées dans ma maison de basket. en tout cas c'est inédit quand même c'est bon à souligner foofu daal bon la jàpp ba ne ko nag léegi comme léegi loolu dem na ensuite il est en Algérie comme il est ensuite dem France moom tout ça actuellement door na en Europe mais nag li ma ko wax rek mooy li ñëpp di wax mooy da nga yaru il faut jamais déroger à parce que yar lu mu lu mu lu mu la may du la ko xañ. xëy na xëy sax peut-être loolu moo ko jàppale lu bëree bare bëree bëri parce que booy bi non léegi dafa yor développement man alhamdulilah loolu la ñuy ñaan. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di si question Mame jaara bi ah bu ñuy seetaan moom dina xaw a difficile torop des fois da ngay yor sa kurus di leen ñaanal des fois doo bëgg xool des fois di nga xool loolu daal moom si la ñuy dund daal. commencé ko si bi muy nekk xale ba léegi balaa ñuy yegg si. bi basque bi dëgg-dëgg boobu jafe-jafe yëpp xamoo si am parce que au début da nga leen teel a dugal école dugal jardin di dem di ñëw dem dugal leen inspire leen ñuy dem di defi sport ko def sport bu muy def cinq ans si laa ko dugaloon muy def euh, kii karaté ba mën na ne sax mun nga ne ne def na ceinture noire mais mënoo ko sentir si moom parce que yooyu yëpp moom du ko fësal nga koy dugal daara aussi bu école tëjee ma yóbbu leen Tiwaawan ñu jàng ma lay taril ma certifié bas âge boobu moom la continuer ba buy voyager nii damay bàyyi sama xel si li muy def parce que buy dugal valise tapem lay njëkk a dugal laaj ana yëre jullikaayam dugal bu defee lool sama xel dal si ne kii fi muy dem dina bàyyi xel si loolu wala tëdd su ma ko woowee tamit mun ma damay fay sama bëru julli xam nga loolu yëpp il faut nga si bàyyi xel muy continuer moom moom la bu tari daa kii daayira ak jotee mu wàcc jël tay siiram jàng tay siir buñ def euh, récité si la may indil tableau sëñ Babacar loolu yëpp si yar la bokk nga teel ko dugal si diine teel ko xam lu muy def loolu yëpp si la bokk. Eh, décevoir daal vraiment su doon suñu sago ñu demee ba finaal ñu jël li leen yóbbu woon mais nag ah dañ naan yàlla loolu la dogal mais nag waroon nañ ko mën a gérer ba fin bi daal ñu daal kenn comprendre à la fin fin vraiment comprendre ñu mais yéene woon nañ leen ko ñaan nañ julli nañ dugg bi génn mais vraiment nag ah xëy tam yàlla loolu la dogal. mu gën a góor góorgóorlu rek. xam nga boo jëlee sa objectif nga ne moom si lii laa ne mm-hmm. lépp si looy ne rek mm-hmm. def si sa fulla def si sa fayda mm-hmm. ba mu xam ne lii moom si nga jëm kii wam yi ni muy bëri nii trophée yi nii muy dem école chaque fin macha allah chaque fin d'année nii lañ ko doon révélé yëpp mooy jël français mat kii yëpp moo tax moom foofu moom si loolu laa koy ñaax toujours rek sépp looy def rek def ci sa la ba wane ko parce que boo xamee ne ko yaa yaa opté lii bu la si kenn mëne defal li si mën góor góorlu si bu baax parce que lii nga opté ba nga xam ne pare nga si ba seet leneen moo nga nekk si loolu aussi